nga gisee Youssou Ndour nekk icône de la musique sénégalaise tey joué fi pour la première fois mooy artiste fi njëkk a joué moo ko ngeen te mën naa wax nan nga ko tey. Euh, parce que am euh, bijou bu mel nii am ku mel ni Youssou Ndour mu koy defal ay yeneen dëkk aujourd'hui dans ci dëkk yu bëri France euh, États-Unis bu ñu amee seen ay euh, palais yu mel nii palais de sport yu mel nii dañuy boole Youssou Ndour ci art yi nga xamante ni mën nañ fa tëgg donc bay ci say weewu tànk bu dee am nañu lu mel nii et que Youssou Ndour ñëw tëgg fi mënuñu lu dul lu ko parce que fii defe naa temple la bu bu doy waar on peut organiser des événements sport organiser fi ay événements culturels donc grand bal ak envergure am nu mu tollu organiser ko fii je pense que c'est une bonne idée bu Youssou Ndour waaye fierté la aussi pour pour tout un peuple quinze mille pla quinze mille places neexu la neexu la feesal tey région yi mën naa ne ñëpp ñu ngi fi tey nan nga gisee loolu ñëpp déplacé wu ñëw pour fekkee programme. waaw Youssou Ndour moo toll noonu Youssou Ndour moo toll noonu xam nga euh, euh, nangu moom da boo nangoo da ngay da noppalu donc moom ku yebu nangul ko rek quoi Youssou moo toll noonu aujourd'hui bu woote woon fu gën a mag fii defe naa dina ëpp sax li fi nekk donc comme artiste bi moo toll noonu te comme on dit wolof. bis du tuuti borom lay tollool. midi plus nag xaw ma laal la ci émission bu cartonné instant bi ñëpp moom la ñuy seetaan réussite émission pour yow lan la. alors réussite c'est ce serait trop tôt le dire mais c'est euh, émission la boo xamante ni mayonnaise baa ngi prendre petit à petit. Euh, après ay années yoo xamante ni dama doon yee téléspectateurs yi à un moment donné j'avais envie de changement ak renouveau te comme loolu mooy sama euh, toujours sama combat di changer moo taxoon ma changer def midi plus et je me rends compte que petit à petit sénégalais yi téléspectateurs yi ñu ngi ci gis seen bopp. côté humour bi nag moo gën a neex ñëpp da ngay reetaanloo en même temps yaa ngi yaa ngi jàngale en fait loolu mooy concept bi c'est un cocktail euh, entre midi 14h. propose là en fait. Donc c'est un cocktail d'information et de divertissement. Donc c'est un journal mélangé avec du divertissement et je pense que loolu itam dafay intéresser téléspectateur bi seetaan. Oustaz Modou Fall Oustaz Modou Fall moom xanaa dañ koy maintenir nag émission yi ngay def ak moom tax na ñu bëri ñu jàng jàng si lu bëri parce que question yu banal ngay posé te pourtant am na ñoo xam ne xamuñu chaque vendredi c' que période bi dafa demoon mbàkk loolu moo tax gisuñu ko ci vendredi mais chaque vendredi incha allah dinaa ànd ak moom ci midi plus bi. ak Viviane gis nañ Viviane waa di seet ñëpp est ce nañu xaar yeneen artistes wala ubbil nga support artiste bu nekk pour jàppale. pour ñëpp la en fait midi plus vitrine la pour yow ah pour euh, Sénégal pour euh, c' est pour monde. c'est une émission fourre-tout où je parle de tout c'est-à-dire que muy Viviane que muy Wally que muy Youssou Ndour qui devait passer dans Midi Plus mais malheureusement ñun itam amu ñu woon jot bi finalement ñu defaral ko émission spéciale mais defe naa c'est pour tout euh, c'est pour tout le Sénégal c'est pour tout un peuple donc ñëpp lañ ci recevoir et au fur et à mesure ñuy dem dina gën a am ay surprise mooy animation bi yéen yéen a ci xam ngeen bay ngeen seen waar bu baax conseil euh, ah mais ñoom ñëpp ñu ngi góorgóorlu xam nga affaire bi moom kenn moomu ko voilà comme li nit yi di faral di wax mbaxalu xeer la donc euh, xale yi ñu ngi góor góorlu ñu ngi wane seen talent ñu ngi def euh, li leen war man c'est mon avis ah. j'avoue que nag ma am jot pour di leen xool ñoom ñëpp mais ñi ma ci jot a xam wala ñi ma ci jot a déglu ñu ngi góorlu ñu ngi def bégal seen public et c'est ça l'essentiel maintenant nag ay ñu ngi focus ci lii wala focus suñu ci lii loolu ñoom la concerné waaye kenn ku ci nekk même bu dee ñaari nit am nga ko ci auditeur wala téléspectateur et que ñu ngi leen di bégee je